Aujourd'hui, une candidate. Mais j'ai dit, quand il avait déclaré qu'il ne ferait pas de troisième mandat, le 3 juillet 2023, euh, qu'il renonçait certainement à un troisième mandat, mais pas au pouvoir, qu'il userait d'artifice pour prolonger son mandat. Je l'ai écrit le, 23 ju euh, le, 20, le 3 juillet 2023. Allez lire mon tweet. Alors c'est acté

tekkiwul ni li ngay wax nekk na loolu la yoon wax def na ko defagu ko bu fekkee ni tuuma yooyu am na li ci waroon tegu mooy commission d'enquête parlementaire bi wéyal liggéeyam après juge yu ñuy wax ñu yóbbu leen ci yoon bas ba mu leer ndax def nañu ger gi ñuy wax wala defuñu ko waaye bala ñuy xaaruñu loolu ndax waxoon naa leen mercredi 31 ba mu fi ñëwee ci session neewoon naa leen seen problème du commission d' enquête parlementaire dàq élection yi la ñu bëgg loolu moo am tey loo wane nañ ko bu fekkee ne nag tuuma yi ñu wax ñoom gëmoon nañ ko la ñu waroon njëkk a def mooy nii premier ministre ab Amadou Ba waratul mu ne jiite gouvernement Sénégal dañ koy motion de censure daaneel ko bu fekkee ne président la république bu sukkandiku ci yooyu kàddu convoqué reporter élection yi la mu waroon njëkk a def mooy dàq premier ministre Amadou Ba parce que mënuñu nangu premier ministre boo xam ne nee nañu corrupteur nga ngay diriger ministre des forces armées di diriger ñu gouvernement loolu ñoom ci seen biir la bu fekkee ne conseil constitutionnel lu wax ci ñoom dëgg la la ñu waroon njëkk def mooy leeral loolu ba mu set wecc ñu xam naka la ñuy doxalee teg beneen conseil constitutionnel waaye pa dàq ay élection ñu leen yitte loon mooy dàq élection. leneen ne PDS ñoo nekk ci ginnaaw dama ni Abla Macky dafa lëkkaloog waa PDS waa PDS ndax war nañu am droit wax tey ba jàpp seen candidat ñoom ñu lëkkaloog seen candidat ci ay sos ak ay fen yu tar parce que noonu lañ ko mën a tuddee fen na ñaari yoon bu njëkk bi ne 2019 que benn nationalité la am. 2023 mu fenaat ne benn nationalité la am décret bi ñëw wane ni que loolu ay sos la nekkut ay nar la donc bu fekkee ne ñoom dañu ànd ci loolu bëgg a bàyyi li nga xam ne dafa wér ñu am ci ay firnde yu leer nañu conseil constitutionnel atte ko ñu dem di teg ay tuuma